ñu toll lu ne ñu ngi koy dégg lu ne mi ngi ñëw ci suñ kaw waaye benn intérêt lan am muy élection yi ñu jëm ñu gañe ko le 24 février. duñ tontu de ma ne duñ tontu de duñ waxate kenn benn objectif lan am mooy élection yi ñu gañe ko au premier tour waaye buñ ko gañee noppi. ñu ne bokk nañ ñi nga xam ne ku ñu la xusi ñu xusi la parce que ci dëkk bi lañ juddoo ci la màgg ca nag du tiit kooku suñu borom dogal na ko. li ñuy ñaan nit ñi mooy dimanche balaa midi na responsable yëpp génn mobiliser seen i ñu dem wote ji ñu gagné incha allah Touba. sa loxo rek ñu wane suñu bopp ñun waa Touba te defe naa ne ñun ñii kenn waruñoo jiitu ci ñu wane suñu bopp ci président Macky Sall. Serigne Saliou dana woon Abdoulaye Wade li ma la yéene Serigne Touba rek laa ko ñaan 2007 lu taxoon wax ko Touba. ma ne président Macky Sall fi mu jaar waa Touba gor si nag laay wax ndax li tax mu goree mooy li mu wut réew mi en 2012 dafa gañ Sénégal perte Touba. gañ nag département de Mbacké ko neexoon ba mu séddale du sédd Touba dara ci électorat ndax Touba bu ñëpp meloon na ma Macky Sall du dégg son excellence waaye def bu doomu dëkk bi la fi jiital muy Serigne Gallas Kaltoum mu gagné département bi perte Touba taxul mu génnewaat ci loxoom. chantier bi mu njëkk am muy 416 milliards autoroute Ila Touba dana dama koy jox Serigne Touba yóbbu ko Touba lu ma ci góobee kan. dama ne bu ko neexoon de yóbbu ko Mbour ndax boobu Mbour amagul autoroute bu ko neexoon yóbbu ko Kaolack benn waaye dañoo daje barki démb mu ne ma autoroute bi ñu waatu waatu ko ñu ko jóg ndax ticket bi. autoroute xawma la Sénégal lañ ci bind ma ne ko yow da ngaa gàtt xam-xam mu ne waaye ma ne ko Touba foo mu ñore Touba kenn gisu fi café Touba café kenn gisu ko ci tuubaa kii mu di fi ñore waaw lu tax muy ñore Mali gee ak Côte d'Ivoire te léegi ñu naan café Mali café Côte d'Ivoire ñu naan café Touba te boo demee ba France xam nga loolu xam ndax café Touba amul ma ne la dëkkale café Touba jël autoroute bi dëkkale ko Touba kii alalu suñ Touba la ñoo waaye autoroute bi moom Touba la ci yéege wàcc Ndakaaru Ndakaaru bu ci yéege wàcc Touba la Cheikh Diouf Mbaye noonu ku mu neex ak ku mu naqari ko alalu suñ Touba na yamul ci lam ca dolliwaat mooy assainissement Touba si nga war a lawoon ay milliards duusu ko suul ci suuf da koy def ca kaw ñëpp di ko séen waaye moom daa ñëw jël fukki milliards ak ñaar defal ko Serigne Touba ci biir suufu Touba muy assainissement Touba mënoon na jaayam bourse sécurité familiale gis nga ne Touba dëkk la boo xamante ne Serigne ñëpp daw nañ wuti saa yoo xëy bi ñu ñu ngi laaj président ne naa jàppale ñu fi nekk ci amuñu ci bourse sécurité familiale jël ci soixante mille familles amee ko fi ci électeur chaque trois mois mu di leen jàppale bu ko neexoon dafa yem dëkkub Serigne Touba bi benn poste de brigade la fi président Macky Sall fekk mi ngi nii ci ancien garage bi nekk Daaru Marnaan benn poste de police la fi président Macky Sall fekk mi ngi janatul maxwa mu ne dinaa ñagale Serigne Touba dëkkam bii ba lépp lu fi nekk ci lu fi ko fi andi fi brigade de recherche andi fi accès drone jël benn cas euh, ubbil ci benn poste de police bu bees def ko tali bu bees mais ku fa dem tey da ko ko fa fekk. dem en face kër Serigne Abdou Karim Mbacke géej ca Ndindi ubbi fa benn poste de brigade ngir renforcer sécurité de Touba. mu ne nag la ma cay dolli mooy damaa gis ne ñi màggal si ci dëkk bi di jëm Ndindi dañoo bari léegi nag Ndindi dañu bëri bisu ci autoroute bi bu ko defee ma dafa leen deux fois dafa ko éclairage. deux voies yi tey ma nga commencé ca buntu kër Serigne Abdou Karim Mbacke ñëw ba ci rond point Darou ma naan bii ci poste de contrôle président Macky Sall la waaw ma ne ñun waa Touba bu ñu amee président boo xamante ne si ne Moussa Gagne lépp mu def ko fi man day maa dégg Serigne Fallou Jumaada mu wax ci xubboog Jumaada jumaa yi Jumaada jee mu nekk ni jumaa la mu ne président Macky Sall jàppale na Serigne sépp ci ay directeurs jàppale lañu ci chômage. kon jàpp naa ne ab sëriñ boo koy dimbali doo ko jox xaalis da nga koy jox directeur mu dem bay nga ko semence mu dem bay engrais bi jàppale nañ ci bu baax a baax a baax bi mu fi ñëw màggalu Tuubaa li fi daan dikk ci ceeb ñu di ko jàppalee kilifa yi matul deux mille tonnes te mi ngi benn prix de deux mille et quelques tonnes di ko jox kilifa diina yëg néew gi doole yi ma ne ñun waa Tuubaa nañu gore ñoo ko deseel nag ci Sénégal kenn deselatu ko li tax nag ñu deseel ko mooy danaa ñëw nga xam ne dig nañu ko muy hôpital boobu ci Sénégal waaye nag suñu jigéen ñu baax ñii nga xam ne bërki démb bénéficié woon nañ ci DER bi ana ñu ñoom it. waaye nga xam ne bërki démb fii la ñu déclaré ne nañu financé ñu dégg ko ca changé tey jii ni may wax ak yéen plus de groupement financé nañ leen ci DER bi sama soxor biir Aliou Kassama na ma jox léegi kitaasam bi 2 millions et quelques lañ ko financé mi ngi nii na ma jox léegi kitaas bi léegi la ci doog a jot ma ne ah gars yi nan jàppale président Macky Sall nan ko jàppale ndax kuy wut as kuy wut borom kuy wut ngor kuy wut nit ku baax kuy wut ku liggéey jàppal président Macky Sall ndax lu ne dégg na ko ci réew mi réew mu ànd ak ngorom ak fulaam ak jomam ak léppam ànd ak la ko sëriñ bi waxoon. coow li dégg yëpp doo dégg mukk ci àddina ñu ne waa Matkaaw ñoo def lii. dëgg la de. am solo la. ndax àdduna kat li ci am solo war na sa xale tey ma war na sa ëllëg réew ma wax na sa ëllëg réew loolu ci melaw xale nga ko mën a amee kon ñoom ay référence lañu sant nañ yàlla ndax yoon jur gone jaar yaar ko mu jub nangoo liggéey tegu ci yoon du lu yomb farata li nga xam ne moo na fi dajale tey dañu nekk fii muy le 24 février 2019 pour balaa président Macky boo au premier tour loolu mooy li nga xam ne moom la ñu bëgg di sensibiliser jigéen ñi ak xale yi di leen xamal ne candidat bi nga xam ne mooy président Macky Sall te ñu jël décision di ko jàppale dañu bëgg ren ci le 24 février résultat yi ñit Sénégal yëpp résultat yi Touba gën cee favorable ci weer président Macky ndax nag li Serigne Abdoulaye waxoon ku jëbal Serigne Touba taalibe la ñoo lay fay. ca président nag def na ci dëkk bi lu mar lu jaar delloo ko njukkal bu ko defu doon duñu ko wax dafa def lu kenn deful te ku def lu kenn deful nañu war la njukkal te defal na waa Touba loo xam ne mënuñu ko te nit bu la defalee loo mënul maanaam da nga koy sant li ko mën a sant li ñu seq mooy jàppale ko ci élection yi falaat ko deuxième mandat premier tour.